yéesu jàngale na ay taalubem nangeen ngeen sopp àddina ba soppaale sax seeni noon ngeen jàppale sax nit ci lu ñu soxla ci yeneen nit sax yoo xamante ne bokkuleen ak yéen diine yéesu dafay jàngale benn nit ku doon tukki fu sori te bu mu demee ba ci yoon yi vingt